assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara am mbégte lool nag niñ leen ko digee woon weeru boroom Daarul Muxti wi di baraxlu bu dooree danañu ànd ak yéen ci waajtaayu màggaluk daarul moxti ngir xamale leen ak boroom daarul moxti kon mbokk yi xam ceerno jot na xam ceerno dafa jot kon bu nu ziyaaree mbokk yi te jiital ci ziyaara bi sëriñ Muntaxa Mbàkke mi toog toogaayu ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba ak njabootuk sëriñ Tuubaa gépp di nuyu ak ziyaara sëriñ Abbas Mbàkke mi toog toogaayu borom Daarul Moxti ak njabootuk borom Daarul Moxti gépp muy njaboot gi nekk ci biir dëkk bi ak njaboot gi génniku dañuy ziyaara itam mbokk yi nuy safoo ba di topp di ñaan ci darajey ñaar ñi waraloon bis bi gannaaw ba nu ndokkalee ba ñu ndokkeelee sëñ Muntaxa mi toog toogaay ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba mu tukki woon ak Serigne Abbas Mbakke mi toog toogaayu ki ñu bàyyi woon njaboot gi di borom Daarul Muxti bis ba ñu gisante gannaaw ba ñu tàggoo ca Mbàkke Bari moo waral màggal gi kon ñuy ñaan ci daraje ñoom ñaar ñooñu tawat ji nga xamante ni moo lëmbaaje réew mi ba tax Serigne Abbas Mbacke joxe ndigal tey wax ni bu ñu eggee ci juróom-ñeenti fan ci weeru avril atum ñaari junni ak ñaar fukk avril deux mille kenn ku nekk fa nga nekk na nga fa màggal màggalu boroom daarul moxti gi kon loolu mooy ndigal li sëriñ Abbas nee na kenn ku nekk fa nga nekk nanga fa defee màggal gi kon ndigal laa ngi noonu nu fas yéene nag li fekk ñu yegg ca bis ba ànd ak yéen ngir xamale leen ak borom darul mooti ndax xam Cerno jot na pàcc bi nga xamante ni bii moo ci njëkk nag dañoo bëgg a xamal ñu nuy seetaan lan moo waral màggalu darul mooti gi nga xamante ni day firndeel ni weeru Shaabaan wi di rajab mooy weeru boroom darul mooti jële nañ ci sang bu sell ba Cheikh Abdul Xuddoos Mbakke mi doon ñaareelu xalifa borom Daarul Moxti ba muy woote màggalu junni ak juróom-ñeenti juróom-ñett doon ñaareelu màggal gi mu màggal ci xilaafa gi Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké waxoon nañu li waral màggalu Daarul Moxti Nena barom borom darul moxti ñaar fukki fan ak ñent ci aw baraxlu la ñibbi àjjana nee nena ba ñu ba war baraxlu wa di waji delu si ci atum jurni ak jurom ñenti téeméer ak ñen fuk ak ñent 1944 magam doon sëriñam njëkk wuutu borom daarul moxti di Cheikh Mahamad Hawa la joxoon na ko ndigal ni ko bindal leetar Cheikh Moustapha El Kérim ngir ñu roy ko ci màggalu ñaar fukki fan yi tamxarit Cheikh Abdoul Khoudous nee na ba ma bindee leetar bi El Hadji Serigne Lo Gallo di waajuru monsieur le ministre Thierno Lo doonoon chef de village bu Darou Mouhty moom la ñu joxoon lettre ba mu yóbbul ko Cheikh Moustapha El Kérim Cheikh Abdoul Khoudous nee na boole na ci ay bayit ci arab di way yoo xamante ni ويد نكو الشيخ مصطفى الكريم بوليكو اك ليتر با بيلا جي سيغ نو غالو ديمي الشيخ مصطفى جوخ لين ديغل غير نيو ماغال ماغالوك دار الموت شيخ عبد القدوس مو بينون اي بتاخل ني وار اي فاس dem ci ëtti diine yi ngir yëgal màggal gi E kilifa yi booba màggal gi ñaar fukki fan ak ñeent la woon ci weeru baraxlu ndax borom daarul mawti bisub alxemes ñeenti fan ci weeru baraxlu ci fukki waxtoog benn ci yor yor ci la gu tedd ga yéeg jëm ci boroma dëppoo woon ak ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru août ci atum junni ak juróom ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett le 26 août 1943 kon màggal gi atum junni ak juróom ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent 1944 la ñu ko njëkk a màggal dat boobu wala lël boobu màggal nañ ko ci fukki at ak benn ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom 1955 fekk booba Cheikh Mahamad Fadal Mbacké mi ngi ci liggéeyu jumaay Tuubaa ji ba mu ko tàmbalewaatee en 1949 xam ngeen ni booba bu ñu daan toj carrière sëñ moo daaw ball moo daa ànd ak waa dëkk bi yëpp kenn du fi des ñu dem Touba xeer yi ñu daan jëlee ndokk ñu di ko toj muy tojum carrière yàlla dogal nag 1955 carrière bi fekk magal gi wala magal gi fekk ci tojum carrière ñaar fukki fan ak baraxlu di Chaabaan fekk seigne modaw ball ak wa darul Moxti ñaga touba di toj carrière seigne modaw ball ci talibé ga laaj Sëriñ Fallu niko ko dañuy toj carrière am dañuy dem magali Sëriñ Fàllu ni ko toog leen toj carrière sëñ Modou Awa Balla ak njabootu borom Daaru Muhti yëpp toog Tuubaa defe ko nii ko sëñ Abbas jàng foofa alxuraan ak ay xasida muy màggal gi kon 1955 kenn wootewul màggal gi fii ci Daaru Muhti ba carrière ba jeexee nag ba ñu ñibbisi ci la sëriñ lu Mbàkke mbind sëriñ moo daaw la ab leetar jox ko ndigal ni ko nisfu Shaaban di fukki fan ak juróom ci baraxlu mooy bis bi boroom daaru moo ci gisante waatoon ak sëriñ Touba gannaaw ba ñu tàggatoo ca Mbàkke Bari ci Jolof sëriñ bi dem ci géej gi bis boobee ñu gisante waatoon ca Ndar muy bisub mbégte jël leen ko di ko màggal daaru ndax sëriñ bi bi mu wàccee ndakaaru ci fukki fan ak benn ci weeru novembre atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar 11 novembre jël saxaar ñëw ndar sëñ Issa Dieng borom Dieng ak Lagan la yebal ni ko demal daarul naan wooli ma ceerno sëñ Isaa ca njàmbaar ga daal di jël saxaar wàcc këram ndànd takk fa aw fas dawal fas wa ba fas wa fes ndax dafa nekkoon ci yafal maanaam fas wa daanu mu daal di tekki tegga jëndaat aw fas takk ca tegga noonu la def ba dem daarul manaan bi mu egsee daarul manaan fekk na borom daaru muuti dem Touba don nemmiku ji dongee fa nekk ndax xam ngeen ni sëriñ bi bi mu demee ci tukki bi Touba bi dañoo joxe woon ay ndigal ni Touba bu fa kenn dëkk li ñuy wax Touba mosquée muy fii jumaa ji nekk ak daarul Xuddoos ak daarul Minan ak daarul Rahman gi ñuy wax daaru naar te mooy pencum sëñ Sohaybu borom daaru dafa wutoon ay dong yu fa nekk di wattu bagage yi sëriñ ba fa nekk danaa def bu jekkee ba yàgg rek mu dem tuubaa ngir nemmeeku ji dong ya bi sëñ Issa ñëwee daarul ma naan ñu ni ko moom kët dafa dem Touba bi borom daaru mu ci ñëwee nag sëñ Issa ni ko sëriñ bi ñëw na moo lay woolu ma nga ndar borom daaru mu ti ànd ak dalal leen ñu berndeel leen waaye borom daaru mu xamal leen ni ko xamal leen waa yol ma sëriñ bi nga xamante ni bii def nañu noonu nag la ñu ñëw ndànd jëli na ci seigne Cheikh Awa Balla mu wax ni bi egsi nand dégg sahar gi bayiko ko di yoxu seigne isa jël fas ya jox ko sante ya njóbbu ko ci kërëm yew ko fa mu ànd ak borom daarul moxti ci sahar gi wax nañu kër bi ñu eggé borom darul muhti bi mu bi ramba ci mom jox ko loxo sujjóot dafa sëgg di sotti ay rangooñ di sotti ay rangooñ ba mel ni loxo loxoy sëriñ bi dañ cee sottim ndox sëñ Matar Samba nee na ku tedd ki xaadimu rasuul Cheikh Ahmadou Bamba moo jàng alxuraan ca làmmiñam wu tedd wa ba ñu dellu si ñoom ñaar doog a mën a waxtaan li tubaab di wax émotion borom Darou Mouhty eggoon na ci sëriñ Touba. foo xamante ni gëj a gisante gi ci Zahir tax na ba mu ko gisee dafa sotti ay ranqooñ dundam gépp ñaar yoon la ci mas a sotti ay ranqooñ bu njëkk ba mooy bi mu tàggoog sëriñ bi te mbas tàbbi Cheikh daal Yeddaali nelaw Cheikh Moustapha tawat Cheikh Mamadou Lamine Bara tawat borom daaru muuti jàpp julli ñaari rakka tàllal sunu borom ay loxoom ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan ci sa magay ak sa tedd nga njabootuk serigne touba gi mu ma baye bu serigne bi ñibb si mukk ma diko ko laxan nan ko barabu diwa nga ne barabu diwa ngi ni fi lañu denc diw dama lay ñaan yow yalla su ni dem dafa ta ñak jëlal sama bakkan bi bakkanu soxna Faat Isa job sama wajur wi ak bakkanu Modou Awa Balla mii nga xam ne moom laa gisagun ci doom te nga bàyyi fi njabootu sëriñ Touba gi sunu borom tawasul googee boroom borom Daaru Muxti def sunu borom nangu ñaan nga moo tax sëñ mu Ka ni keroog la Ceerno njëkk a jooy ci duniyaa dal di euh, garanteeru ga fekk yu bon ya ñaareelu jooy ga génne ay ranxooñ mooy gisanteem wax ak Serigne Touba ca Ndar lettre bi ko Serigne fàllu bindoon mu yeeg man xëy na direct bee tax duma ko mën a wane waaye danañu ci dellusiwaat won ko bokk yi ñu barkeelu ci mbindum Cheikh Mohamad Fadal Mbacké kon bisu boobee doon bisu mbégte moom la Serigne Fallou digle ñu tuxal màggal gi di ko màggal ca bis boobee kon bis bii sëñ Modou Moustapha joxe woon ndigal màggal nañ ci Daaru Muxti fukki at ak benn bi ko sëñ Fàllu soppee lañ ko indi ci fukki fan ak juróom ci Chaabaan waaye ñaar fukki fan yi ak ñeent lañ ko daan màggal li ma wax nag nii Chaabaan mooy weeru borom Daaru Muxti li ci daje ci moom dafa bari bi ci njëkk mooy fukki fana ak ci bi ci la gisante wat ak Serigne Touba waye bis bobu di fukki fana ak ci itam tawat diko ko fukki fana ak ci Shahban lako ko tëdd ñenti fan lako ko ro roam gu tedd ga ma nga yegg jëm ci boromam ci yor yorub khamis ñaar fukki fan ak ñen ci batay waye wi tam sering Touba bind na ko niko hamalni, xamal ni dama gisone lu jëm ci ci yow bu egsi woon say noon danañu bëgg ree say soppe dinañu joy ma ñaan sunu borom ngir loola baña exi egsi ci wéru chaban wénu romb la ko ñaanon dem ba yaakaar ni sunu borom nungu wul ñaan gi waaye wéru chaban wi ñu dugg ren bi nga fi financé bima ma fajar ba nopi la ma sunu borom xamal ni ma ñaan goge ma ñaanon nungu nako kon lu bir la ni wéru Chaban wéru borom darul Muxti ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam don na ñaan bis bi dàq ci mom di bis ba muy gisee borom ba muy dajeeg boromam borom darul mu'ti fukki fan ak juróom ci wéru Chaban le tëdd taw di ko yóbbu ñaar fukki fan ya ak ñent ci la room gu tëdd ga yé jëm ci boromam sëñ Moussa Ka nee fukki fan ak juróom la xëy di bóoru ñu naa bayit bayit mu daldi di muuru nitti fan ak ñeneent weeru Shaabaan di alxemes la ni meles réer sodaan bokk yi kon fii leen ko yemale tey incha bi ba ba nuy egg ca bis ba bis bu sat dana nu indi lenn ngir xam Ceerno dafa jot kon dañuy ànd ak yéen ngir di leen xamale ak Thierno kon maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen wax ni xam na jot na